wa kay ginnaaw bi santé sante julli ci yonent bi sant suñ ñaari waju ak suñ borom kër borom tuba mu baxam ñi ngi sant bu wër ndax li lepp dogalub yalla rek ndax yalla moy borom lepp mom mi ko fi indi yalla nako fi jëlé ci jamm ci bark borom tuba ndax mo man lepp mo sañ lepp moy def lepp kon yalla nako fi jëlé kenn mënu ko fi jëlé ku dut yalla ñu gor lu suñu jamm yalla te li lepp yalla dañuy won bopam rek ñu góor góorlu di jàmm yàlla nekk ci lu neex yàlla tuubal yàlla di sant bu wér a wér a wér a wér a wér ndax la sëñ Saliou waxoon rek moo ci nekk nee na li nekk li ñuy def ci seen biir bum leen jaaxal ndax yàlla mi leen sàkk moo ko ciy def lu ngeen di lu ngeen di wut ak a liggéey ci lu baax def sàkku leen ko ngir seen biir bàmmeel waaye li ngeen di nekk ci àdduna moom yàlla ko yor kon yàlla moomu ba léegi loolu loolu sëñ Saliou wax ba léegi ci lan ne. waa jën yi moom moo ngi nii dañuy indi jën yi gis ku naa nag corona bi moo waral parce que koor gi muy jëni moom macha allah dañ daan gis client gis nga marché bi yaa ko gisoon sa bopp gisuñu kuñ jaay mais xañ na nag feebar bi moo ko waral mais sant yàlla la rek yàlla mi ko teg yàlla na ko gi ci darajay Seydina Mouhamed bañ toog ba client yi desiwaat di jënd mais gisuñu kuñ jaay surtout marché Dior moom gisuñu koo jaay koo jaay doo gis benn client nangul ñëw xam naa nag feebar bi moo ko waral ak toog leen seen kër yi loolu rek la mais du dara xañ na bis bu paasee rek yàlla dina ko teggi ci darajey Seydina Muhammad waaw loolu la de. yàlla dogale rek ndax yàlla moom mooy tegub jaamam moo koy teggi waaw ah xëy na lu yàlla indi la rek te bu ko waree jeexali day jeex waaw liggéey bi nag moom comme ni ngeen ko waxee nii niñ ko daan liggéey ah at yi weesu ah wuute na daal ah, ndax ah, nit ñi moom xam nga ñemeetuñu ah. xale yu ndaw yi nga xam ne ñoom ñoom lañ ñoom lañ daan lijjanti pour ñuy ñuy ñuy ñu leen di wutal ay yére di leen wutal ay bagage xale yi du ñu génn kenn du bàyyi sa doom yi génn ci korte gi xam nga moo tax liggéey bi taxaw. ñu ngi leen di nuyu di leen siyaaru ñu ngi fii ci marché Dior euh, ñu koy dund mu métti lool man maa ngi ci marché bi mais photographe la caméraman la mais ki nga xam ne moom mooy président de la bi Euh, aide yi nga xam ne ñu ngi ko doon joxe gisuma benn yoon ñu wax ci ñu nekkoon ci secteur yi nga xam ne dañ doon filmer wàllu audiovisuel yi te xam nañ ne xew yi lañ njëkk a arrêté ci Sénégal képp koo xam ne yaa ngi doon yëngu foofu waroon nañ la bàyyi xel bu baax a baax commerçant yi tamit niñ ko niñ koy dundee métti na lool ndax euh, ñun ñu ngi dund ak ñoom nekk ak ñoom ci marché bi mu métti lool ñu yor njaboot di fay seen place di fay courant lépp te ba léegi ñu ngi fay courant ji fay seen droit de terre di dagg juute juute bi léegi léegi rek la fi jógee euh, mairie yi tamit ñu ngi wax seen doliance seen intérêt te moment bu nekk ñu ngi laaj xaalis. Euh, taxawal njaay bi rek njaay bi moom daa sooxe léegi bu baax a baax a baax suñu client ay benn benn ngay gis waaw mën nga xëy wàcc sax moom mooy loolu. mais mëno ñak ñëw fi sa place ko di nga xëy ñëw fi sa place boo gisee ben ben baax na boo gisul nga ñi fi mais coronavirus bi moom dëgg yàlla moom sooxe na liggéey bu baax a baax baax. wax dëgg yalla nak ñu yolomal yëf yi nak ndax mbir bo xamul kañ lay jeex da nga ci organiser organiser bo xamné nak ñëpp ci gis seen bop ndax du ñëpp yor du ñëpp am amna ño ñoo bala ño joxe dépense dañuy ñëw for ko ci marché bi. door dem joxe ko muy góor muy jigéen nag ndax dépasse yi war na góor ñi war na jigéen ñi kon koo xam ne bu xëyee day daw lum njëkk a for yónnee ko njabootam wax dëgg yàlla ak yonent bi bu sañoon ñu yolomal lépp yombal lépp jàpp na la lépp sëfoor itam ñu ngi ci lu metti ndax am nañ ciy doom am nañ ci njaboot am nañ ciy boroom kër am nañ ciy nijaay kon buñ leen téyee lu day ne liñ leen téyee mënunoo for dara mënunoo for taatu dara ndax ñoom ku nekk leen tane ndax nit ñi amul beneen métier sax ni ngi jóg di jaay ci masque yeeg lu ne ñu di ko def ñoom nag mënunu loolu gamee gaari seen i oto toog yor seenu njaboot nag yor seen i soxna ca oto li ci gàcc dafa bari ndax sëfoor sa calan lan emprunté ca la ñala jox oto ba ca la say bokk ak say ñëpp ci la kon nag wax dëgg buñ leen téyee ñaari weer yàlla mënunoo dem mënunoo dikk metti na nit ku nekk nag li ngay def da nga koy xool ci sa bopp ndax li waral xool ci sa bopp mooy ku ne xam na ne góor bu xëyee ñaan na yàlla jox ak ay soxnaam lu nu togge toggal seenu njaboot ak seeni bokk kon nag loolu boo téyee nit lu man ñaari weeri yàlla mu nekk ci àll bi façon wu ne def nañ ko nag ñaan nan nee nañ leen nan leen toog fukki fan ak juróom ngeen xool nu ko bu nu corona bi jàppul ngeen bàyyi nu ñuy jibbi ci suñuy kër fu nu war a aw aw nan fa ak ñoom ndax man dama cee am mbokki chauffeur te loolu lépp teewul ñu dangal affaire bi nan leen bàyyi nin organiser dakaar dem dikk yi organiser ko tata yi organiser ko taxi yi nan leen ko organiser oto boo war a def juróomi nit ñu ne leen def leen ko ñetti nit wala ñeent te bàyyi leen nag ñuy daw. moo korite gaa yi nii gisuñu kenn korite heure bii marché bi da daan fees ay nit gisoo koo jaay tailleur yi jaaykati ndugg yi gis nga ndugg yaa ngi nii foo dem doo gis ku jënd heure bi marché bi dañ daan buuxante jën yi dañ la daan woo naan la bàyyil ma jën nii gisoo koo jaay jën yi jën yaa ngi nii tege gisoo koo ko jaay xam nga timit foog ñu jàng mais tamit foog ñu jël ci seen matukaay yoo xamante ne xale yi dinañ mun a jàngi te duñ am benn dara lu leen a gàllankoor suñu wàccee def directement dem ñibbi seen kër yi mais nag xale yi yàgg na jàng su génnee ecole am nekk di taxawaaloo yooyu yooyu tamit ñu éviter ko bu xale yi génnee école ñu fexe ba xale yi dem ñibbi seen kër yi bu leen utaloon tamit ay oto yoo xamante ni mën na oto yi di leen jëli di leen yóbbu tamit loolu tamit tamit xale yi dinañ mën a jàngi. kenn dootul génn Dakar waaw ñoom la yàlla jox réew mi. su ko yàlla jeexalee rek mu jeex xëy na moom it dafa bëgg euh, feebar bi jeex ci réew mi mais kenn ku nekk am nga njaboot te ndakaaru kenn dëkkut fi euh, suñu sañoon kenn ku nekk gis sa njaboot mais en tout cas yal na ko yàlla jeexal. Euh, beneen bi ci des président de la république ñu ngi koy laaj ndax daara yi nga xam ne tëj nañ ko tasaare ko yóbbu xale yi kañ la ñuy delloo si xale yi ndax bàyyi nañ xel bu affaire bi jeexee ñu jëli ndongo yooyu delloo ko ndax réew mi réewum diina la te jàngal Alxuraan mënu fee ñàkk. merci jërëjëf. client yi wàññeeku nañu bu baax a baax gisuñu sax client yi ndax ñëwuñoo génn ñu bari ñëwuñoo génn ñu bari ñu toog seen kër yi ñu ngi bëgg a génn mais ñëwuñoo génn ni feebar. ma bu feebar bi jeexee fii la deux ñu leen ñi dem jàngi na feebar bi taxoon ñi taj école ñaan balaa la deux feebar bi jógee jógee fi la élèves yi dem jàngi. waaw waaye lépp nag nan sant yàlla rek ku ñaan fekkee ko daal ah santal suñu borom te yàlla nan ko fekkee ñun ñëpp. te képp ku mu dalit yàlla na sa yàlla saafara teggil la ko ah ba mu jeex te yàlla na ko suñ borom yàlla jële yàlla mi nga xam ne moo man te lu mu lu mu def moo ko xam yàlla na ko fi jële ñoo ngi koy ñaan ci barke Alaaji Fàllu Mbàkke ci barke Sëriñ Fàllu Mbàkke ci barke Sëriñ Fàllu Mbàkke yàlla na fi jeex